yu tedd yi fi teew bokki jullit yi ak bokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp ci turu ki nga xam ne moo fi jëmm sëriñ Touba tey ci kaw foofu tey ci kaw suuf ak Cheikh Mouhamadou Mountakha ñaan suñu boroom bàyyi ko fi lu yàgg lool tam ànd ak wér. am na ko ci lislaam am ko ci liggéey sëriñ Touba suñu borom may ko kàttan ko wér ba lépp mu mottali ko nu kawe jortam ñuy nuyu mboolem kilifa yu fi te yu tedd yi fi teew yépp ni ko ñuy nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo fi teew ñépp di ay kilifa di ay boroomi xam-xam rawatina nag ki nga xam ne moo fi teewal njiitu réew mi di Seyd Mouhamadou Abdoul Aziz te ministre bi yor wàllu islam teewal ko fi ñu koy nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm ci teewaay bi ndax xam nañ ne xat na ci moom di ko yóbbante cant ak ngërëm Abdul Aziz ci kóllëre ak bokk gi nga xam ne dox na dikke mag njabootu sëriñtuwaa ak xam gi mu xam Serigne Touba li mu doon ci réew mi ak bëgg gi mu leen bëggoon ak li mu fi am mu jàpp kóllëre gi di ko doxal waxtu ne muy yónni ay délégation yu mag ci ki fi nekk Serigne de sàkku ci moom ñaan di ko dénk senegal di ko dénk Mauritanie waxtu wu ñu fi dikkee itam lépp loo xam ne taxawaay la boo xam ne war na ko ci mu ngi koy def ko ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal suñu borom gën koo dimbale kàttanal ko ba li nga xam ne tàmbali na ko ci réew mi ci liggéey bu baax boo xam ne ñëpp teg nañ seen bët mu mottali ko ci jàmm. di nuyu itam ambassadeur Moustapha Tall moom mi nga xam ne. moo fi teewal président de la république Macky Sall nekkal fi réewum Sénégal taxaw fi ñaari tànk ndax mooy ambassadeur bi waaye itam ñëpp xam nañ taalibe gi mu doon ndax mu ngi bokk ci njabootu Serigne Cheikh Gaïndé Fatma loolu itam nag mu ngi koy wane waxtu ne ba mu fi ñëwee ba léegi lépp loo xam ne war na ko ci suñ dikk gi ci taxawaay ak yitte. ju ma sëkk ju desul fenn ngir xam ne réewum loo koy defal waaye xam ne ab bi buy jëf la moom itam kon ñu ngi koy sant cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu ñu koy ñaanal suñu borom mu dimbale ko moom itam kàttanal ko ba mission bi ñu ko indee ci réew mi te gis nañ ne lim ci man lépp mi ngi ko ci def yàlla gën ko ci dimbale defal ko ci tawféex di ko sant itam ci ndaje mi ndax lépp loo xam ne moo ko ci waroon def na ko ci taxawaay desul dara kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko yóbbante ci moroom mi ambassadeur am yi nga xam ne teew nañ fi rawatina ambassadeur bu Arabie Saoudite ak Arabie ambassadeur bu Maroc ambassadeur bu Soudan ak ki fi teewal réewum Palestine ak ñi fi teewal ambassadeur Gambie ak ki fi teewal Algérie ñëpp limoon nañ ko kon ni ko Cheikh Abdoul Ahad waxe won legi ci langue française rek laa koy wat ci wolof ndax fi ci Mauritanie ñëpp xam nañ Serigne Touba li taxone ñu indi ko fi illa ja jëru del ci wat ndax wax nañ ko ndax dafa wax ne man zanna sayri rib ami aksasi مثل مسيري رأس عام جيسسي ثبت كونه جهولا غمرا bal huwa tadyibul ali lil umra lam lam yaku sayru aksasin si waa jasa man li qaada baadu waadu na jasa kon loolu dafa ñëwoon ngir wax ne mboolem li desoon ci lu baax ci kaw suuf suñu borom dafa xotti suuf si dóor ko ci biir ngir mu ñëw jël si ko kon na képp koo xam ne ñëw nga fi suñu borom dafa la tawféex nga bokk ci njabootu Sëriñ Tuubaa war ngay xeeñtu loola te xam ne ba mu agsee la ko Cheikh Sidi Baba njëkk wax rek الشيخ أحمد نعمة أولها هذه الخلائق كلها مولاها نانا سرين توبا خيول لا غو سوني بروم واتيل ادنا سيب بوكو يوبو سنغال مو دون سينو خيول بوكو يوبو مورتين مو دون سينو خيول kon nag bu yàlla dogalee mu dem ba ñaari réew yi li nga xam ne moom la adduna sépp bëgg muy pétrole gaz mu boole ko seen diggante kon loolu lenn la ci meññanti liggéeyu Sëriñ Tuubaa kon nag yàlla na ci suñu borom def barke bañ ñi fi dëkk ñëpp jariñoo ko te lépp loo xam ne du jur jàmm wala fitna bañ ci am jeexale ko rek ci bayit wi nga xam ne Sëriñ tubaa waxoon na ko ñoo xam ne ñëpp tàbbi nañ ci biir inna allazina ila sarsara qad qasadu ziyaarati faaraxu daarini aw saara néew na képp koo xam ne bàyyi nga fa nga nekk fekk fii ma fekk si ma fii ci sarsaara siyaare si suñu borom tàggatee la ak say bàkkaar àdduna ak alaaxira Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nag waxoon na ne fa ko Serigne Touba waxe woon ba fii mu ne ku ko te ku ne garaat booba dana tàbbi ci yow kon nag ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi nekk Serigne Touba suñu borom mottali ay yéeneem te dolli leer nag ki nga xam ne ci ndigalam lañ fi tàmbaloon yow muy Cheikh Sidi Moukhtar suñu borom dolli ay leeram tata suñu دغرل انجبوتم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته